bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal jox la kàddu waaw xam nga élevage moom amul euh, tànku ginnaaw tànk kanam laam am ba mu dugg si xam naa ne incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee ba mille vingt 2022 nit ñi dañ gis loo xam ne beneen affaire la daal élevage moom si kanam rek la jëm macha allah mu dugg see kontaan naa trop parce que ñu ñëwoon ñun depuis 2013 lañ commencé exposé Saladam ba 13 édition donc dañu sant yàlla gis ne foire bi léegi wax dëgg yàlla ah, xar yi li gars yi liggéey nañ bu baax daal macha allah. am na solo gaa yi liggéey nañ bu baax a baax waa ñu gis la nga exposé fi nag ay xar yu rafet rafet rafet waa nga présenté ñu xar rek développé ci nag bu baax a baax ndax yow moom ndaanaan nga ci élevage. waaw xar yu ñu leen di présenté fii moom daanaka gars yi yëpp léegi xam nañ leen kii nii kii nii doomu doomu francophonie la francophonie doomu Koromak donc moom mu ngi nekk kër ga am na encore yeneen euh, ay espoir am na fa ay doomam kee doomu ngaari la moom tamit kër ga la nekk et am nañ ay añal yu ñu indi fii encore yoo xam ne seen papa ñu kër ga waaw seen papa ñu kër ga quoi voilà kii nii di ñëw nii mooy Ndeye Amy doomu ngaari la donc moom moo jur kee moom la moom la taawloo xam ne bu tëdd nii encore maam ci la tudd donc dem kër gi la juddoo encore am na njéeme moo nekk nii doomu Kumba Gawla la waaw doomu Kumba Gawla la ak euh, ak ak waaw Renades moom moo nekk nii moo juru kii bon waaw. léegi war na am 203 euh, mois la war a am léegi nii waaw ñaari at ak ñetti weer na la waraguma am ko. naka nga jàngatee production Renades. waaw Renades moom wax dëgg yàlla lu muy génnee moom léegi wax dëgg yàlla dal na sama xel ko ndax euh, andi na fa ay maal yu rafet ak ay añal quoi muy jur daal ay ay production yu rafet rafet macha allah. waaw ñu ñëwaat ci deuxième box bi fekk fi ay añal yu a am solo nga présenté ñu añal yooyu. deuxième euh, deuxième box bi añal bii ma jàkkaarloo nii papa moo nekk nii quoi mooy mooy mooy Renades moom moo nekk nii donc bu weex ba la tamit Renades moo ko jur donc yeneen yi doomu Abbas lañ. seen yaay ñu ngi kër ga doomu Mandel lañ Mandel dem si man la nekkoon donc beneen bi encore doomu doomu NBA la NBA mooy mooy magu première dame première dame mooy jëloon meilleure añal sala dame bu passé nii 2018 waaw ñoom ñoo nekk fii quoi waaw. waaw euh, gannaaw bi ñu présenté sujet yi nag ba pare ñu gis ni élevage partage bi da nga koy da nga koy jëmmal bu baax a baax a baax a baax ku dugg si sa bergerie rek lu mu am dana génnee xar lan mooy sa secret. waaw parce que ñun suñu secret rek mooy xam ne xar yi ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que ñun dem ba ñu doo commencé dañuy jàppale moo tax tamit képp koo xam ne daal soxla nga xar yu rafet boo ñëwee bi incha allah lépp lu ñu mën dañ ko def incha allah rabi waaw parce que élevage moom partage la daal loolu am na solo gars yi élevage partage waaw bi ñu ñëwee ci foire bi nag ñu gis la nga yor fii ay nag yu rafet a rafet a rafet waaw nag yi yan xeetu nag la ba yan genre race la nag yi waaw indi naa fi ay quelques échantillons nag yu jógee ferme ba indi naa fa benn old time ak benn normande ak euh, benn métis local boo xam ne maa ngi ko jëndee woon Louga sama benn papa bu ñu waxee euh, euh, Pa Mor Ndiaye si moom laa ko jëlee woon donc andi naa ko tamit ak ñaari mboom liyaar moom laa ko andi ko. nga mën a boole nag yi ak xar waaw pour man xar yi moo war a gën a yomb boole parce que nag yi ñu ngi ferme ba xar yi ñu ngi kër gi bon nag yi ñoom joo gën a métti xar yi parce que nag yi ñoom seen dund moo xaw a métti tuuti daal waaw mais dañuy góorgóorlu rek daal pour bëgg élevage jëm kanam daal. yooyu nag la ñu bëgg ñu doxantu ba foofu nga présenté ñu nag yi. incha dem léegi ci suñu exposé nag yi ak suñu nga mën a wax sa jaar jaar danga ko seetaan bu la dara raw. Mm-hmm. visibilité dinga am promotion dinga am. na nga wane sa ci émission jaar jaar mi nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi mane fi si stade bu def nag donc dañ fi indi ay trois variétés yoo xam ne bokkuñu race quoi dañ indi benn minute boo xam ne si su mi su Sénégal la donc mooy bu ñuul bi nii ñu indi fi benn old indi fi benn normand donc indi fi ñaari mobilier kër Sante ko ko waaw mbombiliyaar yi ñoom ñoo nekk nag yoo xam ne lañ bon nagu meew lañ ba pare amaale yàpp saa yi mooy moom dafa nekk nag yoo xam ne boo leen di yar dangay amaale yàpp ak meew nag bu góor bi dafay am yàpp bu jigéen bi day am yàpp ba pare dañu am meew am nañ capacité sanitique moyenne vingt cinq litres par waas waaw bis bu nekkee mën nga am nag bu def ñaar fukki litres ak juróom am na sax yu def trente litres waaw par jour quoi nag yi da nga leen a importé wala naka la demee ba ñëw si say loxo. voilà nag yi ni ñu présenté fii yii nii si ANIPEL 1 bi bokkoon ñu ngi ñëwoon euh, Sénégal à à 2017 donc mais kii moom mu ngi jóge woon Louga bu ñuul bi si sama benn papa bu ñuy wax euh, Pa Mor Ndiaye ko jëndee woon quoi voilà 2012 la ñëwoon si man tamit ñoom nag yu baax lañ yu wér lañ ba pare dañu am meew encore mais yii nii ñoom ANIPEL 1 bi lañ jaaree woon ñëw mooy mu ngi jaaree si ANIPEL ak ak jàppale boo xam ne état bi moo leen jàppale woon ñu def ñu def opération bi. mu andi pel 1 bi quoi. ñoom ñaar nii variété bi ban moo si ëpp meew si ñoom ñaar nii. bon yu fi nekk nii yëpp bon normalement léegi nag bu ëpp meew moo war a nekk old sang mi quoi old sang yi mooy noir et blanc yi après après noir et blanc yi après mbombiliyaar yi ñëw wala green mais ñoom ñëpp seen capacité génétique moyenne bi dem na ay 25 litres par vache. ñeme nañ coono. waaw ñeme coono bi nag moo xaw a des tuuti mais yii comme léegi adopté wu nañ tuuti parce que def nañ fi déjà léegi 300 si euh, Sénégal donc commencé nañ at mais bu ñu doog a ñëw xaw a am tuuti complication mais déjà léegi ñoom nekk am nga fi doom ñaari yoon bay dugg ñetteelu doon bi donc ñoom commencé nañ fi miin quoi mais yii ñoo leen gën a ñeme coono yu ñuul yi comme yii ñoom nga xam ne ay mitsu Sénégal lañ quoi. seen production ak seen ñoom seen doom yi ak ñoom kan moo ëpp meew. waaw doom yi moom mu ngi dépendre encore si looy teg si yaay ji déjà léegi boo xoolee boo xam semence euh, boo xam ne moo gën a baax yaay ya nga teg ko doom ji bu ñëwee mooy gën a bëri meew alors que foofu la liggéey bi nekk quoi léegi booy euh, booy inséminer da xool semence boo xam ne moom man yaay yi nga teg ko si pour nga mun a am joo xam moo man yaay loolu mooy liggéey bi quoi. gis booy bi yore machine bi di di raq kii bi machine bi naka la tudd. waaw machine bi mooy euh, bon comme traiteur la mooy comme li ñuy woowee salle de traite mais moom benn tel la pour suuf suñu wanaale nit ñi ñëpp ne mën nañu naan meew parce que meew bu ñuy ratt si nag yi léegi kenn ratteewu ko loxo. waaw léegi bon comme lu ma doon wax léegi mooy si affaire insémination bi comme quoi que mën nañu am nag yu a baax yu fi nekk nii te dañuy dépendre si semence bu ñuy inséminer yaay ji quoi léegi boo sélectionné semence xam ne boo ko in a baax yaay boo ko inséminer bu amee doom doom ji man yaay ji quoi parce que loolu mooy tax en général léegi ñu bëri yaakaar nag dañu am problème amul benn problème mais da liggéey loo xam ne yaakaar nga ne moo gën a baax li nga jënd quoi moo tax alors que ñuy obligé di wàññi yenn nag yi quoi waaw ñu gis euh, booy bi di ratt nag yi waaw machine bi naka la tudd ak euh, lii daal c'est de l'art quoi. voilà machine bii nii même boo ñëwee si ferme yëpp moom lañ yore mais bii nii benn nag am na yoo xam ne comme sàll traite lañ koy wooyee mais kii moom traiteur la mooy machine buy ratt boo xam ne da koy da nga loxo di déplacer dem yeneen nag yi donc léegi buy ratt nag bi da ngay gis meew bi nii muy traversé mais c'est que meew lay nekk directement si machine bi lay dem moom la ñuy rattee même yëpp la ñuy rattee léegi. donc amul benn meew boo xam ne et puis gis nga dañuy raxas ween yi ba mu set donc ñu doog a bondé monté machine bi quoi pour commencer rat waaw. li mooy wane daal ratt loxo ci xeewi na daal. waaw léegi moom ratt loxo moom sérieusement et puis yenn nag yi sax seen meew yi mënoo ko ratt ak loxo parce que nag bi def 15 à 18 litres mënoo jonkoon di ko ratt pour xaar war a ratt à 5 à 10 nag mënul nekk ba tax léegi il faut nga wut machine quoi bi fan la nekk. ferme bi mu ngi nekk Buuxu route de la nekk Buuxu. après suuf su garage benn dañee soo génnee si descente bi rek am na benn magasin buy jaay soow ci kaw tali bi boo xam ne da baax élevage la foofu la ferme bi nekk ko waaw. numéro téléphone yi 77 472 72 12 wala 637 28 51 voilà mooy numéro téléphone yoo xam ne boo bëggee contacter waaye ferme bi boo ci jaaree da nga leen jot quoi waaw waaw. waaw d'accord maa ngi sant ñëpp surtout nag sama mbokk yi may liggéeyandool nii si ferme yi ak nag yi ak xar yi maa ngi sant bu baax a baax parce que tam jàmbaar lañ ko parce que liggéey boo xam ne la képp koo xam ne bëggoo ko rek mënoo ko def maa ngi sant ñëpp képp ku nekk sama tool di liggéey ak man maa ngi lay sant bu baax a baax sant ñu nekk xar maa ngi sant éleveurs yëpp parce que éleveurs yi ñooñu ubbil ba ñemee ñëw commencé yar xar quoi wax dëgg yàlla ak nag ñu leen sant bu baax a baax a baax et puis ñu ngi santaale encore suuf nag ku mel ni docteur Ndoye ndax docteur Ndoye mooy suñ premier accompagnant mooy docteur Ndoye depuis ma commencé yar nag ba léegi ñooy ànd ba pare musul changé quoi ba actuellement nii sax mu ngi ci foire bi ak man sérieusement sama xarit la ba pare sama accompagnement bu baax la ko waaw. docteur waa ñu ngi lay nuyu di